suba teel gi waaye nañ focus ñu tàmbalee kook l' observateur. l' observateur mën ñëw fàtti ci mbiram euh, soxna Ndella Madior Diouf ba léegi rek amna ay révélation yu doy war yo xamanteni enquête bi wane nako euh, bokku na ci li nga xamanteni danaka bébé yi kenn ki gañu ñu dal di koy jugal ci paan gun def glace amna médecin bo xamanteni SOS santé la nek momi dal nañ ko arrêté l'animateur bi nga xamanteni mom moom euh, ca Safir FM la nek déna amna ci ñaari tout tank yo xamanteni mom ci bopp mo leen yobu ci armée la ci qui ngir denc leen fa qui la enfoncé di également ci présidentiel ak APR bi nga gis la fin politique qui na gis nga analyse politique yo xamanteni intérêt président bi nga ci li nga xamante ni moom mooy champ politique après le palais wute kon ak li fi Macky Sall waxoon ne bu paree day rek bàyyi politique et puis ñëw rek ci ñi nga xamante ne li Sénégal ñi yi daal mbiram nooxóor naan dañuy def na ko sudul noonu xam nga wax ko sax doy na waar fii ci mm. ñëw na ci a a ci yooyu la yëngatu ba ñu leen di teg ay bët ak yu ni mel soxna si tamit muy mi yaa gisee di woykat moom nag séq na waxtaan ak yéen bi di l'observateur Fatou ñëw na rek ci soxor ak gi nga xamante milieu bi nek na ci et Boy Niang mom mi ngi tekkul rek ki nga xamante kon euh, mom moy euh, modlo ñom ñoo wara bëre 1er janvier. wa euh, enquête. clôture dépôt candidature yu kon les choses sérieuses commence la di wax ak lu toll rek ci 261 candidats yi nga xamante ñoo demone retirer fiche de parrainage ci direction générale des élections 70 ñom ñoo déposé cautionnement fële ci caisse de dépôt et de consignation daanaka ñaari milliards yo xamante kon collecter nañ ko. wa le quotidien. agence judiciaire de l'état pour voir na kon mbiram cassation élection recours bi déposé nañ ko avant kon li nga de rek euh, moom mooy délai bi ngir euh, mën a euh, Sonko rek ñoom ñu delluwaat le ca tribunal ba en première instance on a fait, son collègue de aywa le soleil. le soleil daal ñëwaat ci kon chiffre baa non 79 candidats à la candidature ci élection présidentielle pré-campagne bi nag CNRA du conseil national régulation audiovisuelle nee un mi ngi tàmbali juróomi fan ci janvier ba ñeenti fan ci weeru février ci atum 2024 Ousmane Sonko gis nga ko rek mi ngi ci lycée fédération beeg yu mel agence judiciaire de l'état tamit def na pourvoi en cassation berté bi tam tey dina tambali daw fi ci Sénégal. wa libération. libération mom mi ngi ñëwaat rek soxna Fati ci la doy war la xewoon fële ca kër Ndella Madior Fall la Madior euh, mi nga xamante gis nga ko dem Ndella Madior Diouf kër mandé hein, tout sur gis nga une effroyable affaire. homicide involontaire lañ ko topé maltraitance d'enfants mise en danger de la vie d'autrui exercice illégal euh, de la profession de médecine ouverture et exploitation d'une pouponnière sans autorisation

bébé Youssou Ndour bébé Akon bébé Zleika Mandela ak ki nga xamante ne mooy bébé Mohamed Samba Ndiobène Ka bébé Marema bébé Bijou Ngoné bébé Juma Jang Jaxate ñoom ñëpp gis nga ko ci ay condition yu doy waar lan ñàkkee seen bakkan corps sans vie kon benn bébé boo xamante ne ba léegi muy bébé Akon kenn gisu ko am na ci koo xamante moom comme ni ko l'observateur waxee rek ci paan gun def classe lan jël néew ba daal di ko fay dugal et puis euh, nga xamante ne animateur euh, Safir FM la mi ngi xamante ni moom mooy ca armeel ca Yoff kii nag li tax mu jël vidéo yi nee na dafa dégg sax ñu ne am na gone goo xam ne jaay nañ ko fa 8 million lañ ko jaayee. aywa ñu dem ci la tribune. la tribune Mame Mbaye Niang gis nga ko rek dévoile Karim ak Khalifa Sall rek exclu de la présidentielle gis nga ko rek moom am na ay wax yoo xamante daal ñëw na rek bu dee am na ay manquement yu noté rek ci wàllu amande yu ni mel jëm ci coow li nga xamante ne mooy wàllu politique digganteem ak Ousmane Sonko kon seq na waxtaan ak yéenekaay bi. aywa Walf Quotidien Thierno Alassane di beneen candidat moom nag gis nga ko rek euh, jàpp na ni rek euh, danoo war a mën a sàcc ay élection ci argent bi daal candidat aussi euh, mi nga xamante rek moy El Ibrahim Ibrahima Mbow bu Union Citoyenne bunt bi il se radicalise ba taxna kon dem na ci Lacoste moy leader yi nga xamante ñom ñoy ñooy Ousmane Sonko dañoo bëgg rek mbir yi leer ci marché yeeg euh, procédé yeeg coût ak euh, facturation diggante 2012 japp 2024 japp na tamit dossier Ousmane Sonko dina jall ci conseil constitutionnel ci lool sax gis nga ko am na benn expert ci walu rek gis nga ko ay ñom ay magistrat yu ni mel leneen dal kenn mu a contraindre état mu dal di exécuter une décision de justice amul benn disposition loi bo xamantene prévoir na kon il faut mu am ay réformes ngir loolu mën a am il fait référence ak affaire Ousmane Sonko bi nga xamanteni malgré ay décisions de justice ba le ken jëfewu ko avis bi daal divergente na bu sukkandiku ko ci mom moom. Eh aywa bés bi le jour. ñëw ci tirage pour le parrainage ëllëg inshallah lay daal di am le sort des grands men rek amna ay chance yo xamanteni ay risques yu ci mën néméku nemmeeku sauvetage du parrainage parlementaire ndax amna ño xamanteni ci loolu lañ opté soxna Fatick. Eh aywa ñu dem ci las. las yi daal di ñu war rek muy clôture euh, dépôt candidat ci élection.

fichier Bassirou Diomaye Faye moom euh, finalement parrainage citoyen la daal di dem et charge yi nga xamante ñom ñoy peser ci soxna si di Ndella Madior Diouf yenn cas bi daal dina ci ñëwaat ñëwaat également ci Souleymane Ndiaye mi nga xamante ak partem S2D démb sargal nan Macky Sall ak une mobilisation XXL. ay wa le témoin le témoin daal di ñëwaat ci li nga xamante ni élection présidentielle ak tamit euh, nombre de candidatures yi nga xamante gis nga ko euh hein, une cinquantaine fa lañ daal di muju alors que 266 ñom ñoo demone jël fiche parrainage. ay wa Sud Quotidien. nga ko rek euh, ñoom nag en scène dafa mel ne finalement ñii nag muy juróom euh, gis nga rek dafa mel ni ah, Lamine Camara mi euh, yenn cas bi ñëw na rek ci milieu de terrain ba ca daal dafa mel ni Brighton ak Chelsea teg nañ ko gët et puis tamit ñëw ci li nga xamante mooy Bamba ak Ciment bi ah, ballottage jëm ci liste bi nga xamante ni en principe war na koo def et puis dafa mel ni démb xaw naa dugal ñaari bit. rassure pas ah jëm rek ci ha? li nga xamanteni moy gan gay blessé na avant li nga xamanteni mom moy kan bi uh, lamine kamara mi nga xamanteni rek sénégalais de lamine ci rétrospective yi ndax moom daanaka dégg na ñaari yoon ndam ñaari coupe d'Afrique jël na ko moom Lamine Camara et puis nekk meilleur jeune génération am ci débër ki dem gis nga ko ci CAF Awards yi mhm. Sadio Mané Cristiano Ronaldo am nañu def sama doom baay ji di Boulaye tamit gis nga ko quasiment forfait mhm. musiba la ndax moom bu ñëwoon tey mhm. Sénégal mën naa gën a sori ndax taxawaayam moom Boulaye Dia open press doomu Pikine ji tamit démb en image démb daanaka ne aussi. Mm-hmm. kii di Boy Niang ndax wan le premier war naa bëri nag on le rappelle. Mm-hmm. moom ak le roi des di Modou Lo. aywa jërëjëf merci beaucoup Chérif mu nekkoon yéenekaay yi ak la xëyee pàcc bu njëkk bi Malick euh, actu commentaire bi dañuy taxaw mu mel ne nag comme li ñu naan euh, les choses. Euh,